jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ñu taamoo bàyyi xel ci seen web tv mm-hmm. alazar touba point com fépp fu ngeen mën ci nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen euh, sant bu baax a baax ci bàyyi xel gi nga xam ne yéen ñu koy bàyyi xel fépp ci àdduna leen dalalaat ak jàmm nag seen beneen numéro seen émission zone 28 euh, tey ji nag ñu dalal ki nga xam ne moo di Abdourahmane Sylla euh, di kenn ci responsable politique yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bu sell bi ci Touba ci parti bi nga xam ne moo di PDS waaye itam am na leen ndombal tànk ci fi nga xam ne moom moo di ci commune rurale bu Touba nga xam ne moom moo fa yor lépp lu jëm bokk ci commune di président bi nga xam ne moo yore lépp lu jëm ci wàllum fële ci commune rurale bu Touba ah, tey jii nag xam ngeen ne euh, ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm euh, bi nga xam ne moom moo soxal euh, mbirum Karim Wade ñu koy wax affaire Karim Wade ndax xam ngeen ni jamono ji fii ci réew bu Sénégal ginnaaw ba ñu bi fële ca Ndakaaru daal di koy mujj dakkandil fa fi ak altine loolu nag tax ñu fas yéene sekk ak moom waxtaan ndax moom ci dëkk bu sell bi Touba fi la fare te ñun li ñuy wax rek daanaka ci dëkk bi ci lay soog soqeekoo ba tax nag euh, ñu fas yéene ànd ak moom waxtaan bi ci euh, moom mi nga xam ne moom moo euh, bokk ci ndaw yi parti démocrate sénégalais yi fii ci dëkk bu sel bi Touba naka la ñu ko gisee ñoom en tant que koo xam ne mën nañ pratiquement yéen a bokk parti waaye mm-hmm. di doom ci njiitu réew mi fi woon di Abdoulaye Wade nga xam ne kenn mënul wax parti démocrate sénégalais te mu te tuddoo ko mm-hmm. avant nag ñuy dugg ci biir waxtaan bi nañ lay bàyyi njëkk nga nuyoo ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan waaw merci soxna Awa ñu ngi sant bu baax di nuyu ñëpp rawatina ñi nga xam ne si dañuy seetaan seen euh, web TV alazar touba point com di rafetlu bu baax seen liggéey danañu ko <coughs> faral di seetaan liggéey bi rafet na am na solo continuer leen si noonu dina dina baax bu soobee yàlla maintenant man Abdourahmane la mm, euh, laa tudd di membre commité directeur bu parti démocratique sénégalais. Mm. di kon frère euh, Karim Wade nga xam ne yàlla dogal na euh, waa juróom di président Abdoulaye wàdd moom mooy suñu kilifa ñun ñëpp di secrétaire général du parti démocratique sénégalais. Mm-hmm. Euh, nekkoon fi opposition ci lu yàgg yàgg ñaar fukki at ak juróom-benn yor fi réew mi fukki at ak ñaar. Mm-hmm. ba nëgë ni itam mu continuer parti démocratique sénégalais boobu nga xam ne ci laa bokk mu continuer yor ko nekk secrétaire général ba. kon su fekkente ne am na loo xam ne dal na ci kaw ñenn ci ñooñu nga xam ne si ci parti boobu lañu ñu bokk. Mm-hmm. liggéeyoon ci réew mi. kon danañu ko danañu am cawarte lool ci jàngat ko rawatina nag mu dal ñu dal ci kaw koo xam ne doomi suñu kilifa la di doomi président Abdoulaye Wade di Karim Wade mm-hmm. ñu di ko ñaawlu ci ñaari fànn benn bi moo di que ngir mi dafa xaw a historique maanaam ci histoire Sénégal bi mu commencé ba tey ñaari yoon lañ fi amagun procès yoo xam ne si yu mel nii la benn bi mooy procès bu Mamadou Dia nga xam ne digganteem ak Senghor ñoom ñoo ko séqoon bañ doon wax naan haute cour moom haute cour de justice moo ko àtte woon mu doonoon événement boo xam ne si bu am solo la woon bu rëy a rëy te waaye rafe dana baax ñu xam procès boobu noonu lan lañ ci la ca Sénégal jëlee woon. bi ñu ko defee ba noppi mu nekkoon 1962 dañoo mujj ne que loolu yëpp Senghor bi nga xam ne moo ko séqoon ak moom yëpp dem ba reconnaître que ne lii kat euh, ab xeex la woon boo xam ne si rek dañ doon bërti bërti ëpp na ko doole fexe na ba ñu yóbbu ñu atte ko. Mm. de déporté ko yóbbu ko Kédougou ba mu ñu mujj la ñu mujj di wax mooy réhabilitation Mamadou Dia mm. nga xam ne kon. dem nañu ba réccu ko wëlbatiku aussi itam dem nañu euh, ba li nga xam ne si moom la Mamadou Dia amoon ci expertise lépp Sénégal perte ko parce que ginnaaw bi mu génnee euh, jëriñootuñu xam-xamam te amoon na ko amoon xam-xam la xam nga ku nekkoon euh, njiitu daanaka njiitu réew mi booba ndax booba président bi mu nekkoon moo jiite woon moo doonoon premier ministre bu bu am doole la woon daanaka loolu moo waral bipolarisation bi bi nga xam ne moo amoon kon bii bu Karim bii mooy deuxième procès boo xam ne si de cette envergure bu tol noonu kon léegi bu fekkente ne dafa dal ci kaw Karim Wade d'abord li ñu njëkk a def mooy ballu ko massawu ko waaye itam di wax ne jàpp nañ ne que mérité wu ko ndax li ko waral mooy moom itam def na liggéey boo xam ne bu ama am solo la ci réewum Sénégal ñëpp man koo reconnaître ma man cee lim aéroport international bu Blaise Diagne nga xam ne montage financement ba montage bu technique bu particulier la mu def ko ba fi mu ne nii muy yow muy man muy yeneen citoyen yi nekk ci Sénégal yëpp mm. képp koo xam ne tukki wuloo doo yëg ne ñi ngi Sénégal a ngi tabax ab aéroport te loolu noonu ci xeer bi mu waaw bi mu nekkee ministre la ko la ko doon def wëlbati si itam autoroute bu ñu ko dee wax ci senegal moom Karim Wade moomu noonu moo ko démarché dox ko indi ko ci senegal kon lu mu néew néew amal na njariñ lu am solo lu ñu mën a tëg bët Sénégal mm-hmm. kon su fekkente ne dem nañu ba ñu agsi fii Euh, ñeneen ñëw yor réew mi muy Macky Sall te Macky Sall moomu mu nekkoon ak moom ñu ñuy liggéey. Hmm. mais est-ce que du est que du est-ce que du projet yu bëri yooyu nga xam moom lañ tegoon ci ci ci ci kii moo tax. Hmm. tey lu mel ni dal ko. déedéet waaw maanaam projet yu montage euh, financier yooyu ngay wax. <coughs> waaw euh, autoroute beeg aéroport beeg. waaw loolu xam nga xaalis xaalis bu xaalis bu toll noonu. Hmm. mu yore woon ko est-ce moo ko xaw a xaw a enlisé tuuti. taqal ko ba tax ñu koy jiiñ lu mat 694 milliards. ci loolu ñu da ngay wax ñu ko doon jiiñ lu mat 694 milliards ba tey ñu wëlbatiku. naan di ko jiiñ 117 milliards yoo xam ne. 45 milliards yi ñuy wax ca Singapour mi ngi ci biir te moom porté na plainte ki ko ko ko ko jiiñ ne leen aussi xaalis ba bu fa nekkee dem leen jëli ko indi ko lu ci war itam ngeen def ko kooku kon ñëpp xam nañu ci Sénégal parce que kenn dofatul ñëpp xam nañ ne que procès bi procès politique la makki sàll yàlla dogal na toll woon na ab diggante baayu Karim teral ko bu baax a baax waaye itam dem nañu ba toll ab diggante am na ak ñàkk déggoo ak baayu Karim a toll na ab diggante moom moomu woon a Karim ca assemblée nationale bëgg koo saytoo ko def yëf mu am yu ca xew yooyu yëpp di ay mbir yoo xam ne si ci biir politique lay am euh, moom mu nekk koo xam ne man damaa jàpp ne que ku rancunier moom Macky Sall wëlbatiku bi yàlla dogalee mu jot ci réew mi mu nekk kut ka kut dana ko àtte def ci entêtement dana ko toroxal léegi nag toroxal googu ñu ko doon jéem jéemal te defee ko ak xel moo waral xam nga lu toll ne ab état mm-hmm. ak renseignement yi ñu yor ak xarañ gi ñu yor buñ dee jiñ nit 694 milliards muy dem loolu di ruus di wàññiku di wàññiku ñuy xam ne loolu wérul ba agsi ci cent dix-sept milliards. est-ce que bi ñu xaw a def ci ci ci ci que ni kut ko kut dañ ko war a arrêté rek loolu moo taxoon. waaw vérifié wuñ avant ba xam xaalis bi fan la. fan la ko jëlee ak bu fekkee am na ko anamu. ba pare ñu doon ko mooy acharnement bi ak haine bi feeñ na ci ñaari côté feeñ na ci benn mooy Abdoulaye Wade am na fi ay premier ministre yu baree bari. am na fi ay ministres yu baree baree bari une centaine de ministre Ablaye Wade nommé na ko fi waaye mennum Karim Wade moomu lañu ci gisagun koo xam ne jàpp nañ ko ne ko ràpp ci euh, ci kaso bi bi Macky Sall la commencé ak léegi. mais am na ay ay Bibo Bourgi ay ñeneen ñooñu. waaw ñooñu xam nga nekkuñu woon ay ministres laa ministres yi nga xam ne si Abdoulaye Wade àndoon ak ñoom di liggéey. ñooñu laa la wax ne la amu ci kenn koo ma mën a limal tey jii mu nekk ci biir kaso bi ku dul Euh, Karim Wade moom. mais est ce ndomba tànk yi ñu joxoon Karim ministre yooyu amoon nañ ko. non non non xam nga xam nga xam nga tëj nit ak euh, jàpp nit ak def yëf wërta aju ci kaw ay ndomba tànk ak sas wu rëyoon. comme par exemple loolu dañ laa war moom mooy ministre euh, yooyu. ñee peut être ay benn benn kii lañ leen di jox benn ministère lañu mais mais Karim lim lim cumulé woon quand dafa. xam nga loolu xam nga loolu seetlu wuñ ko ñu bari ñu ngi koy wax naan moo nekkoon ministre du ciel de la terre waaye booba itam. am na kenn koo xam ne si ñoom ñëpp moo leen jiite muy Macky moom di premier ministre premier ministre moo ëpp doole bépp ministre ak lu mu mën di boole parce que moom moo boole yilif ko yilifaale yeneen ministère yëpp yi nga xam ne si mooy Sénégal di chef du guvernement kon te loolu Macky la nekkoon na ko fi kon li ñu jox Karim Wade lu ko ëpp responsabilité bu ëpp boobu jox joxoon nañ ko ko moom mm-hmm. waaye daal li am wér nga xam ne man moom laa gis moo di que Macky Sall moom rancunier la gis na ne que Karim aussi itam ku ku mu amaloon problème la mu ne kut ko kut dinaa ko toroxal waaye itam gis naa ne que dem na ba ci biir mu doon aw xal woo xam ne si téye na ko ci loxoom su ko ba su ko bàyyiwut dana ko lakk su ko bàyyee aussi itam mu lakk kër gi loolu noonu fi mu ne nii moo dellu si nga xam ne kon yàlla dafa mel ne daal da koo fay xolam waaye Karim wat daal man li ma jàpp mooy mérité wut woon nekk ci kaso bi lu ma yaakaar ne moom la mérité woon mooy tey jii bu fekkoonte ne Macky Sall ku am xel la nëgën ni day fekk muy utilise ay compétence am expertise am muy def lam daan def di dem ci bitim réew notamment ci réewi naar yi di fa root alal di ko indi ci biir réew mi mais est tamit sénégalais yi ñoom ñoo ko exiger que traque bi ñu ñu xool alal ji nga xam ne nii nee nañu lewul. waaw ñu delloo si ko ak itam ñu xool ko xam nga loolu parce que doog a fal tamit sénégalais yëpp ñooy wax alal ji ñu yóbboog ji ñu ja ji ñu luubal. ko delloo si. waaw xam nga léegi loolu itam ñu bari dañ koy wax waaye loolu itam ba léegi lu doy la parce que nit naka lañ koy mën a fale président de la république nga xam ne dañoo jàpp ne que ku am xam-xam la ku am dayoo la ku am tool ba noppi. mu wëlbatiku naan ñi nga xam ne ñoo nekk ci sama doon te ma war leen a ëpp xam-xam ëpp leen gëdd ñoom ñoo ne ma defal nangam ak nangam kut ko kut non moom sénégalais yi dañoo waroon di juum naan ko defal nangam loo xam ne baaxut ci réew mi moom mu ne leen ah déet attention loolu kat suñ ko defee dana wàññi lii te tey jii ku ne gis na ne que li Karim Wade jàppu Karim Wade ku ne gis na li nga xam ne si moom la. tëyee réew mi nga xam ne tey bu démb li ma leer man mooy bu démb doon tey duñu ko duñu ko def ndax retardé na réew mi parce que investisseurs yi fi mu ne nii ñi ngi ne tekk di xoole di dégloo nit ñi nga xam ne si ñi ngi nekk ci biir réew mi aussi te yor alal ñi ngi toog di dégloo kenn ñimewut a sulli ab sëb li ko waral mooy dañoo juum ci départ bi moo di traque des biens supposés mal yi kenn du ko def te àndale ko ak coow li ñu ko àndale ca départ ba mënoon nañoo def day ay ay audit ak reddition des comptes ñun parti démocratique sénégalais dañoo mas a wax ne que. sañ nañ ko mais nañ ko avant avant Abdoulaye Wade di di di wàcc defoon nañ genre audit yu mel noonu. waaw waaye Abdoulaye Wade day lim fi nekk lépp yaakaar naa ne dégguloo euh, traque des biens traque le mot traque kese ku am xel du ko utiliser parce que traquer. dafa am charge négative bu bu bu bu bu bu bu rëy rëy bu nekk ci bi maanaam traque mooy karkaral di la di la di la kar di la bëgg jàpp comme ni ñuy def ginaar gu bëgg a rey loolu mooy traque bien yi ñu am te te xamuñu fan lañ ko dugal ak moom la ñuy waaw mais mais bëgg di xool fan lañ ko dugal ak yu mel mais bien yooyu tey jii bi ñu waxee ne que am na luñ ci dugal yaakaar naa ne ñëpp ñu ne ci Sénégal xam nañ ne que ñu ngi déparé woon ci 4000 milliards ba nëgëni si Mimi Touré mi ci mas a prononcé wu naan léegi am na lu ci dellu si ay 3 milliards la doon wax kon ku ne xam na ne am na une grande différence entre les déclarations maanaam somme yi ñuy déclaré ak li nga xam ne si moo am dëgg-dëgg est-ce que am réew ku am xel dana jàpp ne mënees na faa subtiliser maanaam jële fa quatre mille milliards wala ay deux mille milliards wala ay six cent nangam milliards kenn nit jële ko fa jamono booba ana ministre de l' économie et ba jamono booba ana contrôleur financier yi nga xam ne si. ñoo ñoo nekk ci waaw mais dama ne xam nga 694 milliards. mépp bu fekkonte ne possible na pour que nit dérobé ko ci réew mi kon bu yeboo ñu tas réew mi ñii dem bokki Gambie ñii dem bokki Mauritanie ñii bokki feneen loolu dafa possible man mii Abdourahmane day suñ ma dénkoon six euh, mille milliards danaa am système bu ma doxal ba nga xam ne si kenn du ca mën a subtiliser deux cent milliards rawatina nag ab état boo xam ne sii maanaam dañ laa jox ay ressources humaines ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñi ngi fi ngay wax ne que fii nii sàcc nañ ma fi six cent quatre-vingt-quatorze milliards kii sàcc na ko fu muy gis nga tey tey dama lay wax lu lu réel gis nga tey fi nii am réew mu mën di doon su fa jëlee woon six cent quatre-vingt-quatorze milliards ci yoon. banque centrale ba nga xam ne si moo yor kii boobu na war parce que xaalis 694 milliards mënta jaar fenn dem fenn te banque centrale maanaam. xamut lii lu mu doon mais est-ce que ko ci ay société ak ay affaires yu mel noonu. ak jël ko def ko si ay turu ñeneen ak. ñeneen ñu mel noonu parce que am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si ginnaaw Karim Wade ay associé am lañ ko jàpp ñoom tamit ñu ngi ci kaso bi. waaw xam nga xam nga il est très dangereux de croire que ku ku ku ku nekk xaritu Karim Wade wala nga nekk si ginnaawam rek. waruloo am dara wala loo am Karim Wade da ko moom loolu c'est très dangereux du lu du lu du lu du lu yanu maanaa du lu jaadu liñ ko liñ ko tuumaal tamit bokk na ci euh, ci luubal alal mais corruption massive tamit ci la bokk comme lu mel noonu ah, ah, euh, utiliser sa ndomb ak tànk pour am yeneen ak yeneen yoo xam ne mën nga ko waaw waaw loolu dama ne mm, da nga ne tuumaal nañ ko fi heureusement bi nga xamee ne tuuma la ñu wax ba ba tey jii nag tuuma la waaye firnde toppagu ci te itam man dey man man mii rek bu ma jiñoon nit 694 milliards dem ba mu yàgg ma ne ko ah li ma la cent kat 117 milliards léegi mooy li ma la jiñ danaa ko danaa ne man kat bàyyi naa ko ndax man mii juum naa njuumte loo xam ne ci boroom xam-xam laa la wax de. Mm-hmm. juum de 694 milliards à 117 milliards boroom xam-xam bu ko def waratoo ñi may yëkkati sa loxo ne man borom xam-xam laa. Mm-hmm. léegi buñ ñu jógee ci loolu jàpp nga ni Karim Wade kon dañ ko tuumaal dañ ko tooñ liñ liñ ko ñu ko wax ne moom la yoru ci alal ak yooyu amu ci ba tax euh, CREI yi yow cour bi naka nga ko gisee. loolu cour de justice dañ ko waroon yóbbu wala. wala li mu li mu def. Ah, li ak liñ koy jiiñ la cay dëgg ak li ci du dëgg yoon moo ko waroon a wax waaye yoon aussi itam dafa am mu ko réew mi tërale te kenn amul sañ-sañu jalgati ko ku ne xam na ne Karim Wade. bi mu nekkagul ministre ji ñu ko dara kon su constitution bi waxee ne léegi képp ku nekk ministre ku def ay acte yoo xam ne si délictuel la lu ñuy lu ñuy aaye la bu fekkente ne war nañ laa atte haute cour de justice moo lay atte rawatina bu fekkente ne jamono yi nga koy def dangaa nekkoon ministre wala nga yor titre ministre kon léegi ku ne xam na ne Karim Wade moom mësu fee yor lenn lenn lu xaalis bu tol noonu di di jaar te fekkul mu nekk mu yor titre ministre mm-hmm. kon ku ne xam na ne li yoon wax haute cour de justice moo ko waroon àtte gis nga fi ne nii su fekkonte ne teey nañu jaarale ko fañ ko war a jaar atte ko atte bu ñu war a jaar gis nga mm-hmm. suñu suñu gisee ci moom alal joo xam ne si muumu ko mm-hmm. man nii ak ñi ma àndal ñooy njëkka nangu ne dañ koo war a tëj ba damm ci caabi ci waaye même su defoon dara aussi itam loola noona warul tax maanaam état bi wëlbatiku di violer droit nit ki di ko def loo xam ne si lu jaaduwul mais est-ce que mënuñu ko rectifier parce que mën nañ cour suprême mën na ko rectifier quand même. non suñ ko rectifier xam nga dafa dafay devenir très dangereux. comme par exemple 694 milliards niñ ko niñ ko ñu wàccee wàcc ba ci ba ci 117. waaw peut nañoo dem ba ci biir procès bi tamit cour suprême jël beneen dogal que ni haute cour de justice moo koy. moo koy waaw léegi léegi bu booba woon. kon léegi fooy foo fooy dugal jamono bi yëpp nga xam ne un plus plus d'un an presque deux ans léegi. Mm-hmm. CREI mi ngi ko téyee procureur spécial téyee ko. en violation de ses droits dugal ko ci biir kaso bi téye ko lu toll noonu kon léegi loolu dañ koy passé su perte et profit dafay grave loolu moo tax lu ñuy def dañ ko war a seet te itam réew mi nag tolluwut foofu ci ay borom yi xam-xam ba ñu yëkkatee rek nekk CREI yi lañ na ah, cour d'exception nañu ko moytu daal di fàttali ne que ab Diouf a ko yëkkati woon de waaye ba mu ko yëkkatee daa gis ne que doxul mu teg ko ci suuf laay Abdoulaye da ñëw fekk ko fi gis ne que doxul mu mu mu bàyyi bañ koo tudd Macky Sall ñëw yëkkati manque d'expérience ak cuune moo tax mu yëkkati ko ak itam ay nit ñu ko wër ñu doy waar classe Abdou Latif Coulibaly geeg ñu mel noonu nga xam ne dugal nit ci njaaxum rekk lañuy liggéeye liggéeyee ñooñu noonu. ñoo ko dugal ci giraawaale gii waaye man am naa lu ma leer nekk fim ne nii moom Macky Sall réccu na ko te xam na ne ñi ko ci dugal mere na leen la preuve ki ci gënoon a acharné wu ci traque des biens mal acquis yooyu ana mu tey Mimi Touré la woon mhm. léegi tey jii fi mu ne nii moo gën a doon mooy ennemi numéro bu Macky Sall moom Macky Sall dem na ba xam ne kii nii mu ko daan def loo du du du lu baax xam na ne ci ay erreur la ko doon dugal parce que bu fekkoon ne ku koy liggéeyal lu baax la kon du séparé waat mais euh, procès bi ni mu demee est-ce jàppoon nga ni ñu ko ni ñu ko xaw a yàkkamte nii patax pataxee ko rek xëy xëy rek koy dañ dañ koy àtte est-ce jàppoon nga ni noonu lay demee est-ce que bëgguñu koo may liberté provisoire ak yooyu moo tax ñu ubbi. dafa yeex parce que xam nga lu tax dañu ko dañ ko njëkkee def mise en demeure mise en demeure six mois la la la la la la processus bi yëpp si six mois la ko la ko yoon limité mm-hmm. maanaam septième mois normalement lañ ko waroon a àtte lii yëpp ay pexe pour. yàgg mise en demeure bi lan yàggal ko ci kaso bi moo waral ñu def yii yëpp ba mu agsi fii kon man jàpp naa ne que procès bi dafa yeex te it bi yàgg yàgg ci biir procès bi dañuy gis ne que. li ñuy wax nii lépp lenn doonu ci loo xam ne lu wér la euh, Karim bu demee procès parce que gis ñëpp gis nañ ko bi mu ñëwee procès rek gis nga ko ni mu enthousiaste ni mu saware procès bi yow naka nga ko gisee démb loo xam ne vraiment dama dégg tey ci suba benn anecdote ma dégg tey mu ne Karim nag man dama ko contrôle daan wax naan daan dégg ñuy wax naan du du sénégalais yu mel noonu mais fi mu ne nii xam naa ne pur la parce que mu ne xam nga lu tax damaa gis bi ma ko gisee mu ne tëll génn damaa xam ne kii nii nattu bi ko yàlla teg maanaam muñ na ko. Mm, waaw parce que dafa gën a leer. xaw a am yaram ah, xam ne kii nii yënuwul affaire bi. kaso yi tamit. gor station kaso yi bokkuñu xam nga ni kaso bi Karim Wade di ak tey par exemple. waaw mais bi nekk du benn. kaso bu neex kaso bu neex moom amul. <laughs> Karim Wade kaso boo xam ne yaa ngi di bi gën a gën a jàpp for. Karim Wade ban genre kaso la. non non loolu mooy xel conscience tranquille xel mu dal xam ne defuloo dara xam ne que itam épreuve bii nga nekk nii loo war a muñ la ñu muñ loo la ko nga am dereti muñkat ñu muñ loo la ko nga muñ ko muñ muñ ko ngir yàlla loolu noonu moo tax waa ji nee na nee na Karim nag man xam naa ne sénégalais pur la baayam sénégalais pur la ndax bi mu génnee bu fekkoonte ne keneen la rek dana saalit loolu nag moom man moom laay dëggal Karim yàgg yàgg procès bi moom am na conscience tranquille que ne deful dara te itam dëgg. tôt ou tard day triomphe euh, euh, euh, kaddu yi nga xam ne avocat Karim ñu ngi ko yëkkati ne Henri Grégoire Diop mi nga xam ne moom mooy juge bi ñoom daal jàpp nañ ni dafa xaw a far ak yu mel noonu est-ce que jàpp nga ni moom mooy continuer kii bi. waaw waaw Grégoire man gisaguma wax dëgg yàlla xamoo xaw ma mënuma mënuma ko apprécier xam-xamam parce que itam au moins xam-xam juridique boo xam ne mooy tax xam naa ne daal c'est un magistrat boo xam ne formé nañ ko ci Sénégal moo jiite woon cour d'appel bu bu Kaolack kon am na les compétences nécessaires mais. là où le mooy fi nga xam ne mooy indépendance am indépendance nag nit nag mooy jëlal boppam indépendance magistrat du siège muy magistrat yi nga xam ne si ñoom dañuy toog di atte doonuñu ay procureur yooyu ñoom yoon da leen a indépendant loo mm-hmm. waaye fa problème ba nekk mooy est que am na courage u jël indépendance am dëgg-dëgg vis-à-vis de exécutif bi nga xam ne moo disposer de son sort pression bi tegu ci kaw ci kaw procès bi. waaw pro procès bi parce que gis naa ne que bi mu commencé procès bi procès bi rek. am na parce que ñu bëri ñu ngi doon wax naan démb daal dafa xaw a. waaw dafa xaw a mel ne ku jaxasoo léegi loolu diisaayu procès bi la parce que wax naa la léegi ne la euh, deuxième fois au Sénégal ñuy organiser procès bu toll nii. xam nga aussi itam mille 1400 personnes salle boo xam ne 1400 personnes ñu ñëw ñëpp toog ñuy coow ak a wax ak a tàccu affaire bi demee noo xam ne si Sénégal gépp a koy suivre loolu aussi c'est un boo xam ne dana dal ci sa kaw waaye ànd ak loolu yëpp daal ñun li ñuy gis mooy dëgg triompher te xam nañ ne que bu dëgg triompher Karim Wade daf siy génn. noo tontu Karim Wade biñ ko laajee lan lay lan lay mu ne banquier la mais nouveau affaire yooyu. waaw daf ne banquier la. est actuellement prisonnier politique loolu noonu tontu la ci xam nga ñi nekk ci état bi muy Macky Sall ak waa këram dañoo jox affaire bi dimension politique maanaam politique da cee rax moom itam na comme homme politique la baayam homme politique la ñi muy nekkal ak même avocat yeeg ñëpp ñoom itam ay nit ñu yëngu ci politique lañ am xereñu réponse politique la aux actes yi nga xam ne Macky Sall ak waa këram posé nañ ko muy maanaam bëgg koo téye moom itam mu def réponse politique parce que fi ne phrase boobu li muy tuuti tuuti. Mhm. wax naka ko man prisonnier politique laa. ñëpp moom la ñuy adduna bépp a ko dégg. loolu nag c'est une réponse politique. Mhm. aux actes politiques posés par le camp d'en face. kaaw bi boobu Bourgi dem jëli ji ko ca clinique ba ak perfusion yaak yooyu indi ko jagar jagar loolu noo itam yoon sañ na ko waaye rafetul. xam nga dañoo am nag ñun réew mu particulier du caageenug lu yoon mayee lu ne rek ñu sañ koo def. dafa est-ce que est ni moom moo xaw a guddal procès beeg dafa am teewoon wér ak yooyu duñ ko mën waaw mais xam nga comme comme comme comme teewul wérul te itam juge ñoo ko li ñoo ngir maladie mm. xam nga kon ne serait-ce que par bi ko bi ko bi ko bi ko libéré. wa wax ne que mën naa am liberté dem faju ji ñu di ko def contrôle nekk sous contrôle judiciaire kooku noonu buñ ko doon respecté rek dana danañu am bon foi ci li mu def waaye du ñu nekk day présenté wu coûte que coûte rawatina nag aussi erreur boo xam ne si bu fondamental bu ñu def la mooy di com di ko comparé. ak Hosni Moubarak parce que Hosni Moubarak bu buñ ko fàttalikoo moom ay émeute ko fa jëlee. dañ ko maanaam coup d'état mën nañoo wax ne sax moo ko fa jëlee kooku kon ñooñu doonuñu réew moo xam ne si ci démocratie la ma sa dox. ba agsi fii ñu comparé naan léegi mu Moubarak sax bi mu buñ koy defal procès ni mu procès am respecté wut benn norme juridique. respecté wut benn norme justice boo xam ne si euh, réewum droit réew mu euh, démocratique moo ko teg. kon léegi suñu demee ba àgg ci di ko comparé ak Sénégal naan léegi daa war a kii parce que non non ñi ngi bëgg yàq suñu am réew. suñu am réew dafa doon un pays de droit. nekk réew moo xam ne démocratie def na fi lu ne ñu am ñaari alternance kooku kon acte yi ñuy posé war nañ koo xool. damaa jàpp ne que boo li tax ñu tenir à ce mu ñëw mooy dañ koo bëgg a ba mu gën a dugal Karim Wade ne que Karim Wade wax loo xam ne waxu ko woon ci enquête ba nekk que Karim Wade li ma yor wala séq na nàngam ak nangam jëndee ko liberté moom waaye jàpp naa ne ci li ma gisagoon ba nëgën si gor la goo xam ne si xaj naa la ñu bëgg ci moom euh, mën na koo bañ a def ndax itam nag euh, après tout nag nit ñi nag am na ñu am dignité am na ñu am éthique am na ñu am morale. xam naa ni sa xam-xam màccul ci wàllu ci wàllu arteeg yu mel noonu waaye mm-hmm. euh, war na laa jaaxal trop boo gisee 92 témoins yi nga xam ne teew nañ ci biir salle ba. Mm-hmm. est-ce que jaaxal la est-ce que waruñu leen woon isolé ak yu mel noonu. waaw xam nga xam nga loolu yëpp dafay ñëw ci historicité bi ma la waxoon léegi ci kii bi parce que xam nga lu toll noonu yaakaar naa ne ci ay témoins ak yu mel noonu. ñu ngi ko fi doog a bëgg a gérer ci réew mi kon day ñëw ci ne procès bi mooy le procès du siècle lañ koo mën nañ ko ko tuddee kon léegi dafay tax ñu war cee def attention bu baax a baax ndax juróom-ñeent fukki nit ak ñaar ku nekk ñu war laa interroger tey itam avocat amuloo droit fi mu ne nii tey avocat yi dañ koy wax avocat défense bi avocat bi bu état bi ku nekk di interroger témoin bu ne di fexe koo wax looloo loo xam ne en charge nii euh, waaw ñoo loolu yëpp temps ba muy war a jël jàpp naa ne que dina yàgg lool te ñun nag réew mu ndaw mu suu développé amul jotu nekk fi tenir ay procès yoo xam ne six mois lay jëm comme ni ko juge bi waxee ne mën nañoo dem ba fii ba six mois mais ñun amuñu googu jot. Mm-hmm. encore une fois un pays su développé la ñor mm-hmm. nañu xool li ñuy defaat bu li ñuy def bu baax ba bañ a yàq réew mi nga xam ne si moom la ñu séq mm-hmm. te ñoom ñu jote woon ko ci ay loxo mu agsi fii mosul am coup d'état musul am euh, peine capitale dindi nañ ko fi. yu bëree bëri ak ak yelle fi doomu adama yu bëree bëri xaj na léeg-léeg danañ ko fi bafuye waaye fexe nañu ba mu nekk réew moo xam ne daal wax dëgg yàlla mënees naa rafetlu doxinam ba fii. juste avant dernière question bi euh, taxawaayu maître Abdoulaye Wade xaw laa jaaxal tuuti ni mu dëgëree demul seeti ko ci kaso bi démb tamit. pare ñëwul ñëwul ñëwul ñëwul fële palais de justice ba hmm. loolu naka nga ko gisee en tant que koo xam ne yaa jur sa doom ñu teg ko nattu bu bu toog noonu day ni kaso mënoo fexe ba seeti ji ko wala nga ñëw fa hmm, xam nga Abdoulaye Wade dafay homme d'état bu bu wér a wér ci coono te itam xam bu baax fi ne nii loolu muy def noonu ci bataille psychologique la la bokk bari xamuñu ko parce que dañuy bëgg a da bëgg a jaar ci doomam pour atteindre ko moom waaye daf koy bañ du la wan mukk parce que nag euh, kooku ponkal la de du la wan mukk ne la lii ngay def sama doom ji naqari na ma ba nga di ko ca chantage. mais ñu bëri waxoon nañu waajaloon na ba sol yéreem ñu defar oto beeg yëpp pour mu dem. non non non non loolu noonu ay supputation la waaye moom ku ne xam na ne xam na li muy def parce que mag la boroom xam-xam la ab avocat la xam na lan mooy justice xam na bu waree dem xam na bu wërta dem. xam na ne aussi itam Abdoulaye Wade du jóg ci hasard noonu lépp dañ koy calculer mm, avocat yee euh, je euh, yi ak ñu mel noonu ñoo def ay recoupement jàpp ne que dina dem waaye man mii sax man mii xam naa xamoon naa ne du du ñëw démb. mën mm-hmm. naa am nag mu dem ba ñëw waaye xamoon naa ne du ñëw démb seeti gi itam li tax defu ko euh, moo di que da daf leen a bëgg a war ne leen kii góor la te itam mënoon naa fee bañ a ne parce que fi ne nii nëgë ne mënoon naa fekk Abdoulaye Karim baayam du teew mhm. kon da koo bëgg a da koy fi mu ne ci processus jàngal ko mhm. àdduna ci la nekk ak politique waaw jàngal ko àdduna wan ko ne ko na nga préparé wu à tout na nga xaar say adversaire di la bunduxatal na nga xaar ñu nga tumuranke waaye loolu yëpp nag heureusement que wax dëgg yàlla Karim a été à la hauteur mosoo dégg benn yoon foo xam ne Karim plaindre na fa wala benn mbokkam plaindre fa ci ne baayam seet ko wala lii wala la baayam a ngi koy taxawu ni mu ko ni mu ko war a taxawoo parce que ñu bari dañ koy fàtte waaye baayam fi mu ne nii fait partie des meilleurs avocats du monde. ci loolu sax ci dem parce que avocat Karim Wade gis nañ ci Madické Niang gis ci Souleymane Ndéné Ndiaye. Mm. ne maître El Hadj Diouf am am am am lu mu fa yëkkati que ne mm-hmm. ñooñu waruñu défendre Abla kii Karim Wade parce que mm-hmm. bu ñu ko défendre. Mm-hmm. dañuy wëlbatiku contre nguuru Sénégal te ñoom bi ñu jógee ci nguur gi léegi matagul trois ans. loolu loolu naka nga ko jàngatee. waaw xam nga xam nga d' abord d' abord yooyu noonu yëpp ay tappale la parce que man day je suis témoin Ahmadou Sall day du tey la nekk moom avocat wu Karim. te parquet bi nga xam ne parquet spécial bi ñoom Aliou ndaw ñoo yëkkati dossier bi jox ko individuellement version électronique bi ay awokaay yi euh, te boole nañ ci Euh, Amadou Sall moom. mais version électronique boobu est-ce que loolu mënul andi problème ña ay 8 giga la ci loolu. waaw loolu moom xam nga ñee seen liggéey la xam nañ ko xam nañ nañuy def ba mën ko étudier parce que loolu seen liggéey la mais encore une fois il faut savoir que procès bi aussi procès du siècle la bokkut ak n'importe quel procès véné e. mais ñoom xam nañu niñ koy niñ koy defee ni ñu koy kiiyee xaj na juge yi nga xam ne si ñoo ko jiiñ dañuy jouer sur les nerfs loolu yëpp fi mu nii ci façon de jouer sur les nerfs la parce que avocat yi mën nañoo bâcler le travail mën nañoo taayee mën nañoo sonn et bu ko defee ñoom ñu mën a am prox ndoll bu jaar ba ne ko. waaye loolu loolu yëpp avocat yi ñoom avocat yu xereñ lañu yu xam li ñuy def lañu te man man day damaa d'accord ne nit ki buñ ko jiñee dara képp koo xam ne si mën na ko layal ba génne ko ca am na droit jël ko yi ci réew yu mag yi day damay gis man nekk sax dañuy force nit ki ne la par force da nga am avocat parce que boo amul avocat mën naa doon sorte de ñu user ci say droit maanaam ñu fel la dara ci say ci say àq kon nag Amadou Sall la keneen ak keneen mënta wax lu ñeneen xamul mënuñoo farle te ñoom itam encore une fois avocat du jugé dafay assister ku ñuy juger day wax xalaatam ni mu gisee droit waaye kiy juger mooy juge bi. lan lan ngay lan ngay xaar lundi. waaw non lundi li may xaar moom man très honnêtement. Mhm. li ma gis mooy fi mu ne nii te moom laa jàpp ne que léegi mooy léegi nga dégg ñu ne Karim am na liberté provisoire. yéen waa parti démocratique sénégalais fii si Touba nan ngeen nan ngeen koy dundee ci soutien beeg yu mel. waaw xam nga xam nga xam nga fii nii bari na trop maa ngi may profité ci affaire bi di leen remercier barina trop ay kuréel yoo xam ne dañuy soutenir Karim Wade. est que du mouvement yooyu ñoo ko gën a nag taqal nag. non non mouvement mënu koo gën a taqal parce que te kon kon da ngay confirmer li ñuy wax ne que léegi procès politique la parce que nit ki bu fekkente ne nit ki jàppale ko léegi day tax ñu gën koo bundu xatal kon cela veut dire que. yëfi yëfi politique la léegi mu ku ne sañ na ku nekk ci tolof tolof nga jàppale ko nit bëgg na ku ko jàppale nekk ci kaso bi amul kenn ku ko jàppale parce que nit ñi dañoo sentir que dafa tooñ parce que nit ñi nag ñu man mii tey du ma jóg di jekki-jekki di jàppale am Karim Wade te jàpp gëm gëmuma ne dañ koo dañ koo bëgg a fell ak xam du ma du jóg nii rek comme ça noonu mouvement yi itam li ñuy formé c'est parce que dañoo seen intime conviction dañoo gis ne que Karim deful dara kon nag danaa leen ci remercier bu baax Touba mobiliser wu nañu bu baax a gis nga dañoo naroon a jël ay bus yu baree bari départ fii dem. waaye li ko waral moom mais est ce que xaw a yomb parce que présence takk dere tamit moom. laa lay wax loolu laa lay wax xamal bi ñu parce que ñun lu ñuy def intelligence lañ koy defee bi ñu xamee ne que salle ba ay place yu limité la am te itam ñu nekk Dakar doy nañu sëkk. pour euh, remplir role boobu nañu waroon a demee wàññi nañ ko waaye teewul am na ñu baree bari ñoo xam ne déplacé wu nañ fi dem te itam bu ëllëgee aussi itam saa su ko laajee rek Euh, ñu déplacé wu dem soutenir ko comme niñ ko war a soutenir. yan kàddu ngay tëjee. Euh, sant bu baax a baax gërëm euh, di leen di leen encouragé di waxit ne que réew mi suñu intérêt la pour que ñu sauvegarder paix bi fi am sauvegarder paix nag mënta ànd ak nga jël safara di ko di ko sànni ci kër jàmbur ba noppi naan ko. nan jàmmoo dama gis ne que parti démocratique sénégalais day ba ñu wàccee ci réew mi ba nëgëni si ñi ngi toog di opposé wu opposition bu bu bu am solo waaye kaawu Macky Sall par de par leur faiblesse da dégg ñuy wax ñu naan opposition bu bari xaalis lool ba noppi itam ba bari ay cadre lool kooku ku leen seetaan ñu faagaagal la loolu noonu tax na ba yéene wu ñu jàmm waa parti démocratique sénégalais waaye koo yéene jàmm. moom itam du la yéene jàmm te bu boobaa réew mi nga xam ne moom la bokk moom laa jàpp ne moo ci perte te loolu itam waruñu ko def ndax kat mujj puso bi mu réer a yàq bi ñu wax ci libéraux yeeg yooyu. xam naa moom mujjee mënatul bi mu réer lu lu lu doy waar la te itam makki sàll day wax dëgg yàlla jàppoon nañu ne man de bokk naa ci ñi nga xam ne si bett na leen wax dëgg yàlla ndax jàppoon naa ci ne ñi ci ne du xalaata def lii. ci biir njabootu Abdoulaye Wade te sëñ Abdoulaye dafa waxoon lu am solo loo xam ne moom laay terminer bu ko bu ko bu ko déggoon tey jii dana ma neex lool sëñ Abdoulaye dafa mës a wax ne que euh, man de damaa mës a gis ku defar ku defar démb maanaam fii ne lii muy def nii di toppe naan ñii dañ fee def nangam ak defar li ci sa ginnaaw jour yi ci sa fi ne nii rey ñu Abdoulaye Wade kenn mënu koo defaraat xam nga li mu ne mu ne nit ki lim man mooy li ko tàmbalee ci tey ñu jox la réew mi jéego boo séqi rek muy bu rafet loolu noonu tey moom laay diggal Macky Sall na ko taxaw tey jii dañ ko dénk am réew na fexe gone yi am liggéey na fexe réew mi baykat yi ñu ñu jàppale leen na fexe transport bi dox na fexe ñu liggéey réew mi ba enthousiasme am fi ñëpp seen xol naat waaye fi mu ne nii kat ku ko wax ne ko sénégalais yi itam. ñoom nee na justice bi lañ bëgg daal mu dox mu dox ci réew mi moo tax ñuy jàpp. menn réew menn réew nag ci àdduna bi moo xam ne si justice ko defar <laughs> daan naa ko wax ci samay interview ma di leen wax ne leen réew mi day. ministère bi fi gën a fës mooy ministère de la justice. Hmm. loolu nag gis nga ministère de l' et des finances moo war a gën a fës ci am réew. Hmm. waaye ministère de la justice réew mu gën a fës xaar fa mu si. xaalis bi am ak ñoom Cheikh Ba ak ñëpp féex daal di. xàppi <laughs> ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax sëñ si hmm. Sylla di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci émission yi ba mu yemb di gërëm bu baax a baax Medoune ak euh, Cheikh Ba Thierno fay maam ci kii Serigne Soy bu Mbacke maar ci montage bi ñu jégg lu baax a baax ci kàddu gi nag ndax euh, soj mi leen di daje beneen yoon jërë ngeen jëf.